wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri manabaat bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallim wa maskani sallim min alfujaari wamnun ala alahli bima in jaari wajal ilaahi maskani tuubaabaat misla ismiha bi jaahi xayri man abaat salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen xamal ne bu ngeen déggee kàddu googu ngeen xam ne ñun ay mbokk lañ askanu njuufeen ci njiital Baye Bassirou Diouf dañoo dajale woon sunub jaayante mu toll ci six cent soixante mille ak tonu ciment tonu ciment bi kenn ci mbooloo mi moo ko joxee muy sëñ Mandoumbe mii defal ko askan wépp waaye addi ji ñëpp ko boole seen i dërëm ak seeni ñaar dërëm xeeb ko lool tàbbal ko ci liggéeyub sëriñ tubaab bi ñu ngi soññ ñëpp tey ñaan sëñ Touba nangul ñu ko kon xam naa ma jox Baye Touba kàddu gi. waaw bu yàlla dogalee nag euh, nu dëgg liggéey bi di jëm di Touba jëm ci kanam nga xaay day liggéey sëñ Touba moom nga xaay ko ko na jàkk moom daanaka da ngay daal di gis résultat ñoom seen jëf moom daanaka jërul laaj boo duggee Touba rek gis seen i résultat mu leer naññe loolu moom tubarkal la moo tax nu nu li ñu daal lu nu xeeb la bu nu sëgeen daal lu gàtt gàtt day mat six cent quelques millions lu nu xeeb la loo xaye dafa mel ni daal benn sëb ci cin la la lan ko jàppee waaye nag noo ngi ñaan nag koo xam ne kii yàlla dogal na euh, rafetlu nga ko wala nga déggoo nga def sa benn dërëm rek sa borom dogal mën naa dogal ba balaa taxaw ci wéeru déwén nga nga mën lépp loolu yow yàlla ko sa borom dogal te yàlla xiir na ci liggéey sëñ Tuubaa ndax moo ne waqdi awa ijël li si na daamoo fi xidmati yi wa ab lawu maaraamoo sëñ koy liggéeyal mooy ñaan gaaw gi te pajuk aajo gi gën a gaaw mooy euh, yàlla xiir la ci liggéey sëñ Tuubaa yéen nag vraiment seen seen doxin dafa rafet loolu tubaaka la ñi nga xame ni ñoom laa bokkal benn askan Baye Touba Diouf mi di sama baay Abdoulaye Diouf mi ak euh, Manumbe Diouf mi di samay mag ñu bokk benn maam euh, ñu yàgg a bokk ab tour de famille comme ni ko Baye Touba waxee mën na fukki at boo lii rek la ñuy def nag muy mbokk yu ànd rek di liggéeyal Serigne Touba di dimbalante di jàng ay kaamil ak xasida di ci fasal ñi nga xalifa général des Mourides ak ñi nga xam ne ñu jiitu lañ waaye biñ déggee liggéey bi nag ñu takkatoo rek bañ kenn mënuñu ci xam naa nag du ñàkk ñu ci man waaye nag ginnaaw dañuy dem di dellusiwaat rek te liggéey bi moom roy ak romb la ku ñu romb tamit fas yéene nañ laa romb incha allah di soññaan nag sama mbokk yépp nag te xam ni lii nag moom du loo xam ne luy dakk la di ko waajal te saa bu ñëwee tamit ñu bañ fa euh, fas nekk ca kanam. waaw man de xam may wax mën na cee bañ a bëri ndax man bu ngeen waxee rek waxaale ngeen ma waaw sant naa leen bu baax nag ndax it wax dëgg qualité dafa jafe te mbooloo mi wëlbatiku jox ma qualité gi ñu ma jox kon dama leen ciy sant yàlla na Serigne Touba dolli nu ñëpp yokk ak wér fan wuddu ah, ak mujj gu rafet man daal bu ñuy xasee ba bu noppi rek daanaka amatuma ci lu wax jërë ngeen jëf jërë ngeen الدنيا بجاي خير من نبات